ah asalaamaaleykum àdduna bi yëpp Oustaz Ahmed Diop Fall mbëkk moo leen du nuyu borom yàlla yi kese barke yow mal xiyaam lakk bar gars yi bégg naa ci commentaire yi yëpp zem yi Sidi génn na clip bu bees tàq ñu koy wax buum bi takk nañ ko takk boo xam si barke yow mal xiyaam lakk mi ngi yëngal jamono clip bi buum bi la ko tuddee gars yi daw leen suba teel misi ngeen suivre ko Sidi mi ngi yëngal town bi buum bi la tudd barke yow mal xiyaam lakk la 14 février saint ñu takk ko buum góor ñi nga xam bu guddi jotee dañ leen di takk ñëw leen kon siidi ah Sidi Sidi takkeel jabar ndax ñu takk la barke mal xaamal ak bar dem leen gaaw Sidi ndaanaan nga clip bu bees takk woy waa dégg wuy ma dem leen gën diglu woy waa diglu ko bu baax a baax borom waa bi kenn du yow ci mim réew barke mal xaamal ak bar déggoo ma de maanaam clip bi boo ko gisee ñu laxas siidi Diop ndaw si ñu laxas ko borom sii ci mbii ci riche yi borom balcon yi noonu ndaw si fantal la robb boo xam si barke bal xam lakk bar kaani xeeñ la lay jox di xeeñ salaat non non non si di ma ngi liggéey lu lu am solo mais tamit si di Diop kenn du yow barke bal lakk bar gars yi dem leen suba teel musique ngeen seetaan kili sii di Diop bi yàlla na jàmm yàgg sii di sama xarit maa béy ni kom ci yoon ma xurujukom guppoo gupp gupp fada gupp laa man gupp lëfër lëfër Sidi Diop yaa fi ne kili bi nu mu tudd buum ah waaw waaw buum baa ngi noonu man man li may xalaat tey ku ma war a takk buum lay xalaat man bëgg faal ku pare pour takk ma buum rek ñëw ñëwal barke yow mal xiyaamal ak bar maa ngi maa ngi nii nu kudd sol sama costume bu vert xam nga gaay noir rouge la ñuy sol man costume bu verte laay sol ak tubéy ju blanc ak dàll yoo xam ne marron la barke mal xam la karawaatu la dëru bay xanaa xanaa maa fan daal di karawaatu dëru bay ba pare maanaam ne papillon buum laa koy def jàppale sama doomu ndey Sidi Diop gars yi affaire baa ngi noonu j'aime leen commentaire leen partage leen kenn du yéen ci mim dio barke mal xaamal akbar bu ñu ko defee rek ñu gën a kontaan